yéen a tàllal loxo lu ci man yéen lay waxal ak samay xarit yi nga xam ne ñoo fi nekk yépp ak samay bokk yi nga xam ne ñoo fi nekk yépp te ñoom ñoo ëpp sax waa daayira bi ñoo ëpp lu ciy def muy bokk yi ak xarit yi ñépp sant naa leen yéen taalibe yi nag yéen laay saña digal ndax ñi ci des ku ci ne am na kilifa goo xam ne kii ndigal fa moom la war a jóge waaye ñi nga xam ne tàllal nañ may loxo it eh, ñoom maa leen war a digal li ma leen di digal mooy kenn ku ci ne ci ñoom musuma dem fi baayam ni ko jox ma taalibi sàngam musumaa gis musumaa gis benn benn nit ñi ngi nii toog ku ko ci xam bu ma yeggalee na nga jóg wax ni ma yow yaa ma laajuma ci kenn ku ci ne sa baay moo yëkkati jox ma ni ma kii jox naa la ko walla moom ci boppam mu am coobarik boppam ñëw ni ma tàllal naa la say loxo lu dul ñaar yi ma wax rek man awma ko ci taalib keneen ku ko am yaa ko am waaye man awma ñoom it ñi ngi nii toog yomal am dañuy toog ñu ni ma gaa yi loo leen digaloon man leen nee naa leen woon nangam ak nangam bu fekkee ne loolee dëppoo naag ndigalal yàlla ak yont bi ñu ni ma yow wàcc nga dem toog fee boo xay ne bii digal naa leen te defu leen ko nag bu boobaa ah man wàcc naa yéen a ca des loolu la sëñ Tuubaa bind ci mbindam te moom lu mu bind rek loolu la am bon nag li ma leen di digal mooy li nga xam ne moom la alquran wax alquran dafa wax ne yaa ayuha naasu ittaqu rabbakum lasi xalaqakum min nafsin waahida wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wattaqullaha lasi tasahaloona bihi wal arhama inna laa kaana aleykum raqiba dal ne yaa ayuha allasina amanu اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها mu dellu waxati ne yaa ayyuhal lazina amanu innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shuuban wa qabaa'ila li ta'aarafu waaye nag inna akramakum inda Llaahi atqaakum bind naa leen ngeen di ay góor ak i jigéen ngir ngeen di xamante di dimbalante waaye ki nga xam ne mooy ci mucc ëllëg nag mooy ki ragal yàlla ban nag man sañu ma digle lu dul ragal leen yàlla képp koo xam ne kii dégg nga feneen ñu ni sëriñ Bassirou Anta Niang nee na digle ne lu dul ragal yàlla ak topp ko day fenn waxu dëgg te koo xam ne kii dégg nga ne laaj naa la sa alal di ko jariñoo te te du ci sa coobare loola du dëgg day kokkay day fen ba nag na ngeen ma dimbale ci li ma bëgg ba bu nu demee àllaaxira nu ànd taxaw fa sunu kanam sunu borom taxaw fa sunu kanam sunu sëriñ bu baax ba muy sëriñ Tuubaa ak Cerno bu ko defee am ngërëmam nun ñëpp ñu ni nu àjjanaa ngi ni nu dugg ci bu ngeen ko deful nag a ah, seen bopp rekk la ndax alal ju bari ji ngeen may jox ak daayira yi góor ngeen lool wax dëgg yàlla waaye nag bu ma sañoon wax leen lu leen neex waaye dama ko sañut ndax alxuraan waxu ko sëñ Tuubaa waxu ko yonent bi waxu ko ndax ragal yàlla rek moo mën a yóbbu nit àjji yéen nag am ngeen euh, occasion boo xam ne bi bu bu jafe la mooy muy waa kër sëñ Ibra Faati ndax sëñ Tuubaa ci boppam sëñ ku ñuy wax sëñ mat Mad Lamin Gay ku baax la dégg naa ci moom mu ne sëñ bi woo ko jaare woo sëñ Mirina Sil eh, woo sëñ Mañaaw Sil mu ni leen dama leen te xamal ne li nga xam ne moom laay séddale taali samay taalibe kuy taalibeem li ma ci li ma leen di jox lépp yowmal xiyam ceerno mii laa koy jox mu séddale ko ku ci am moo la jox ku ci ñàkk moo la xañ te dama defe ne nag xanaa ceerno it buy séddale ci njabootam du leen fàtte foog na ne ba nag loolu war na daal sunu xel na ngeen góor góor góorlu te li ma leen digal ngeen def ko li ma leen tere ngeen bàyyi ko ndax nii nu toogee ci baas bi kat bu yowmal xiyaam bu yowmal xiyaamee noonu lañ ñuy wooye bu kulluhum moo ati yowmal ci fardan loolu la alxuraan wax Bachiru antañaan ñëwal ana ku ko tàllaloon loxo ñëwal loo leen waxoon bu ma leen waxee loo xam ne dëpp naa sama bakkan rek wala ma laaj leen sama xaalis def sama poos rek ah booba danaa dugg lool te waaye lool nag fas naa yéene doo am ci man yéen it na ngeen góorgóorlu ci ragal yàlla te topp ko te gëm sëriñ Touba liggéeyal ko ku ko def bu yow ma xaamee li nga bëgg lépp da nga ko am ku ko deful nag na leen war ne man jotewuma ak moom dara ba ne sëñ Basiiru Anta Ñaŋ mooy sama sëriñ yi du ma sëriñam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëfati Mbàkke joxati ñu ko ñu xam ne nii moom la ñu jëmale fii ak déwén jërëjëfati jërëjëfati